feebar yu ko gënoon a garaaw mbokk yi peste bi jaar na fi eh, sibbiru yaa ngi fi pa yaa ngi fi yu baree bare yi fi yoo xamante ne dafay am ay tuubaate di fa faagaagal ay nit kon mu murid yi gëmuñu ne feebar bi munta am tuuba wante communication bi nga xamante ne moom la état war a am ak ñun bañ mën a xam ne feebar bii am na Touba nit ñi moytu ko communication boobu moo amul wax naa ko ci yu baree bari xam nga kaa yu mel nii xalifa général de Mouride moom moo jiite ñépp bu ne bàyyi leen ngeen bàyyi bu ne defal ñu def waaye da ci am yoo xamante ne bu ñëwee faw ñu communiquer ak population bu Touba communiquer ak population bu tuuba mooy tax. li mu bëgg a saafara ñu saafara ko ndax sëriñ taxa fa mu nekk am na ci yu bari yoo xamante ne du mën a agsi ci moom du mën a agsi ci moom ñàkk gi muy ñàkk bañ a mën a agsi ci moom nag jaadu na kon état bi communiquer ak peuple bi danañ ci joxe ay exemple yu leer tey wax nañ ne coronavirus bi am na Tuuba dem nañ ci benn centre de santé bu nekk biir Touba fu ñuy wax daarul manaan ñu yóbbu fa malade yooyu jël test yi yóbbu ko pasteur def foofu test yi wane ne feebar bi am na te léegi ñu nekk ci centre de santé bu Touba boobu muy dirisant ya trésorier ya secrétaire ya ak sëriñ si nga xamante ne ñoom ñoo nekk biir Touba te yilif daaru manaan topp ci sëriñ Muntaxa yilif daarul manaan nga xam ne centre de santé boobu ñoo ci def seen doole def ci seen alal occupé ko def ci yépp ba centre de santé ba mel na mu war a mel damay yaakaar ne su fekkente ne dem ci commune daarul manaan la dëkk te am na coronavirus bi niñ koy waxee duñ ko publier adduna bépp di dégg ñu ne diwa am coronavirus waaye kilifa yooyu nga xamante ne ñoo yilif bi béréb boobu ñu nara a sàkk tey jël ña nga xamante ne dañoo yaakaar ne am coronavirus ñoom war na ñoo mën a fexe ba xam ca dara ba ñooñu tey bu seeni njaboot jógee bëgg a manifester wala ñu bëgg a def ay yeneen ñoom kilifa ya nekk ci biir hôpital ba danañ leen woone leen kaa bii kat état bi ñëw na fi waxtaan naag ñun yëf yi am na waaye kilifa diine yi nga xamante ne ñoo fexe ba centre de santé bi taxaw état defu ci dara ñu def ci seen alal taxawal ko ba mu taxaw ku lu mel ni chef du village bi nga xamante ne moo yor quartier ba nga xam ne ku fa am kër moo la koy nattal numéro te ko ñu jox la xam dëkk ci biir quartier ba trésorier secrétaire yi nga xamante ne ñoo yore hôpital ba lu fay dugg ñu xam ko ñooñu buñ demee ba communiquer ne ñun yëguñu ci dara wër nañ biir daaru manaan géppit gisuñu ko fi am feebar boobu gisuñu kër guñ fi tëj buñ wane ne am na loolu dafay mel ni kon communication manqué na su ko defee bu boobaa murid taalibe yi ñëpp dañuy jóg wax seen xalaat parce que dañuy yaakaar ne sabotage la parce que am na ci loo xamante ne ñëpp mënuñu caa joti waaye am na ñu ca war a joti parce que Touba dafa am nu muy fonctionner Touba dafa am ay dëkk yoo xamante ne dëkk yi Touba dafa màgg fa fekk ko fa ñu di ay taalibe sëñ Touba yoo xam ne sëñ Touba leen joxoon ndigal ñu sàcc ko bi Touba màggee ba fekk si ba agsi ko ba lekk dëkk yooyu ñu boole ko ci biir dëkk bi waaye teewul dëkk ya dafay am ay chef de quartier dafay am ab sëriñ boo xamante ne moo moom pàkk ya di ko natt di ko maye buñ demee ba war faa def centre de santé mooy woo ay taalu taalubeem ñu dajalee xaalis defar ko noonu ñu ko waxee ci hôpitalu Daaru Manaan bi nga xam ne ñoom ñoo dajale seen alal dajale seen lépp fexe ba centre de santé ba taxaw woo médecin ya fa nekk indi leen fa di leen fay nga xam ne ñaari médecin wala ñetti médecin képp la ci état di fay te lu mat juróom nekk fa juróom fukki nit yépp population bu Daaru naan ñoo koy fay buy taalub yi ak ñu nekk ci biir Daaru Manaan ñooñu dama yaakaar ne buñ demee ba dara am war nañ koo mën a xam pour bu ëllëgee ñu mën a protéger wax nit ñi ne leen feebar bii kat am na moytu leen ko nangam ak nangam waaye nekkul ne murid yi ci boppam dañoo gëmul ne Touba feebar bi am na fa loolu amul ñaareel beneen bi ci des mooy communication yi ñuy communiquer ak Touba communication yi moo baaxul parce que tey moodu moodu bi ñu wax ne indi na ko fi ni ñu communiquer ak waa Touba Touba mënuñoo comprendre parce que dafa mel ni 48 heures la fi def mooy la sept la fi agsi le neuf xam nañ ne feebar na kon loolu it ba tey nit ñi yaakaaroon nañ ne tey appareil yi nga xamante ne moo nekkoon aéroport dëkk bi nga xam ne fa lañ doon jógee muy Italie tañ testé ko Maroc gi nga xamante ne moom la jaar waroon nañoo mën a xam ne feebar bi am na ci jëmm ji ba jëmm jooju du embarqué du dem feneen kon dafay mel ni tamit ab négligence am na ci dëkk yim jaar waaye négligence am na ci aéroport ba mu jógee ñoom nag nee nañ bi muy agsi boobu dara jotagu ko mënaguñ ko détesté mënaguñ koo xool ñaareel ba mooy ñaareel ba mooy muudu boobu ñu wax ne moom la ñu wax ne moom la communication bi manqué na ba léegi parce que diir bi mu ñëw dafa néew mooy la sept la fi ñëw le neuf lañ xam ne am na ko fi ñu isolé ko téye diggante la sept ak le neuf quarante huit yooyu te bi mu ñëwee ay coono la yëg tëdd biir këram daanaka saafanti wut ak ñu bari Eh, mën a jékki wall wàll lu toll noonu ci ay nitit maanaam dafa doon loo xam ne communication bi ba léegi baaxul ci Touba baaxul ci nit ñi nit ñi mënuñu ko comprendre mënuñu ko gëm mu mel ni kon man li ma bëgg a wax rek te waral seen jataay bii di almajlisu suura nga xam ne dafay waxtaane ci lépp lu itteel dëkk bi lépp lu itteel nit ñi damay bëgg a dalal xel ñi ci ne taalibe yi gëmuñu ne feebar bi mën naa am Touba te feebar bi mën naa am fu ne ab nattu la bu suñ borom di tegi jaamam rek te ay jaamoo ma nekk Touba ay jaamoo ma nekk Ndakaaru ay jaamoo ma nekk Espagne ay jaamoo ma nekk fépp sëñ Touba lam ñaanoon ak li ñuy wax maanaam jotewuñ dara maanaam jotewuñ dara sëriñ Touba ñaanoon na suñ borom aral ko dëkk bi ñaanoon na suñu borom sàmmal ko ko ñaanoon na suñu borom defal ko ko yépp waaye suñu borom moomu ko sàmmal aaral yi tamit jant bu demee ba yëkkati dara ba teg ko ci dëkk bi suñu borom nekkul ne ñaanu suñ Touba dafa nanguwul nekkul ne sëñ Touba lam ñaanoon boromam daf ko nanguwul waaye bu boobaa rek ci jaam ñooñu ci bi sëñ Touba yooyu nga xamante ne ñoom la sëñ Touba ñaanaloon ba loolu watatee na bañ a dal dañuy gëm rek nag ne bu boobaa ne am na ci jaam boo xamante ne la ko sëñ Touba digaloon am na lum ca wàcc lekko yàlla digaloon am na lum ca wàcc su ko defee nag bu boobaa dafay daal di andi ak njuumte dafay andi rëq-rëq boo xam ne mën naa tax ba feebar boobu agsi ci biir dëkk ba kon nun murit yëpp gëm na ne feebar bi mën naa agsi Touba. waaye communication bi ñuy communiquer mu baaxul ci ñun su ko defee rek mbokk yi kon dafay mel ni tey état jaadu woon na ministre bi tey mu xam ni Touba di fonctionner mu xam ne Touba kat ab dëkk la boo xamante ne dëkk bu mel ni ndakaaru la bu bu rëy rëy tey ndakaaru su fekkente ne dara am na fa te am tëngéej responsable yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk tëngéej normalement war nañoo mën a xam li xew su fekkente ne dafa am plateau. ñi nekk plateau war nañoo mën a xam li xew su fekkente ne tey dafa am barñe ñi nekk barñe war nañoo mën a xam li xew su fekkente ne dafa nekk pikin ñi nekk pikin responsable yi nekk pikin dafa neew te Touba noonu la mel dafa am ay béréb yoo xamante ne responsabilité yi ay taalubé sëñ Touba lañ ci ginnaaw suñ mun taxaa lañ nekk di ay rakam waaye béréb yi nekk nag la fa nekk ñoom ñoo ko seereel seen bopp ñoo ko moomal seen bopp ñoo ko xamal seen bopp loolu dafay def ne kilifa yooyu tey waroon nañoo communiqué ak ñoom ndax tey ministre bi waroon naa xam ne Daarul Manaan tey jii nii dëkku Maam Cerno Birahim la ci Touba la bokk dem na ba Touba ëmb ko ci côté yépp mu bokk ci biir Touba waaye la fa nekk nag ñu di ko dogal ci biir commune ba Serigne Mbacke Dabassar moom Serigne Abdourahmane moom Maam Cerno Birahim moo ko fay dogal mooy maye kër ya mooy tabax centre de santé ya mooy defar lañ fay def kon normalement état tey bu fekkente ne seen communication mat na war nañoo mën a dem daarul manaan ministre bi war naa mën a dem daarul manaan wala mu yabal ay nit ci sëñ Mbàkke Dabasaar communiqué ak moom xamal ko ne ko feebar bii kat am na am na fi ay nit ñu ko am quartier sàngam lañ dëkk su ko defee quartier boobu ñu xam ko sëriñ bi moom dana mën a xam ne feebar bii am na fi te dana mën a wax waa Touba ñu moytu ko mais nag bañ tàmbalee communiqué ba léegi ab muudu muudu bu jógee Italie euh, nangam nangam léeg-léeg ñu waxu sant léeg-léeg ñu wax nangam euh, journaliste yi média bi kenn ku ci nekk di ci coow tur yeñ doon wax. chef du village yi bu demee saytu ko bu demee wër dëkk bi bu demee wër nangam ñu xam ne nangam lii amut mbokk yi dafay indi ak lëj goo xamante ne feebar bi kenn dutu ko mën a faj ñaareel ba mooy bu ñu waxee ba ne ci daaru mënaan la dëkk chef de quartier bi sëriñ sa dem wër daaru mënaan képp mënuñoo xam fu ñu nekk léegi famille boobu nan lañ leen di mettre en quarantaine que kër gi kenn xamu ko amu fa genn kër gu tëjee amu fa benn koñ boo xam ne dañ ne bii nañ ko moytu te daru ma naan di quartier yu rëy daru ma naan di koñ yu may ah léegi tamit su fekkente ne def nañ loolu nag famille ba ca bokkoon continuer di dox continuer di dox continuer di dox ndax feebar bi du gën a law ci buñ ñee dañ koy nëbbu wala duñ wax luñ doon wala duñ wax fu mu doon xanaa bu ñu waxul turu nit kiit bu ñu waxul turu nit kiit danañ ne ci béréb sàngam ca daaru ma naan fa la nekk su ko defee nit ñi mën xam quartier boobu di ko moytu waaye mbokk ya dëkkandoog nga xamante ne tuubaa ni kër yi sësaloo ñoom war nañoo mën a xam loolu di moytu bu baax baax kon mu mel ni bokk yi am na ñu jóg ci média bi di attaquer murid yi di leen saaga di wax wax ju ñaaw di wax naan sëñ Tuubaa mi ne woon dafa ñaan xam nañ ne ñaanam gi amut dafa defut nangam ñii di commenter ñii di wax dafay mel ni nit ñi li tax boo gisee murid yi léeg-léeg di bañ boo gisee murid yi léeg-léeg di deltu ginnaaw di wane ne liñ leen di jiñ du dëgg dafay mel ni dafa am cas yoo xamante ne su demee ba am rek ñëpp dañuy singali murid yi wala dañuy singali Touba wala dañuy singali nangam nangam looloo tax am ci ay benn benn yoo xam ne dañuy génn di def ay vidéo di wax naan Touba feebar ba du fa am wala sëñ Touba ñaanal na ko wala nangam ndax ñoom itam dañuy fayu loolu ñu xamante ne moom lañ leen di tuuma loolu nga xam ne moom lañ leen di wax kon léegi buñ sañoon état bi nga xamante ne moom moom ab dëkkam état bi moom am réewam mu communiquer ak nit ñi communiquer bu sust maanaam wax nit ñi tey par exemple tey bu doon gédee war nañoo wax ak waa famille mbusoobe su ko defee ñu mën a xam ne problème bii am su doon daarul man daarul minam war nañoo wax waa kër sëñ basiiru ñu xam ne problème bii bu dee tubaa xayra war nañoo mën a wax ak sëñ fàllu ñu xam ne problème bii bu dee daaru manaan war nañoo wax ak sëñ mbàkke dabasaar ñu xam ne problème bii am bu dee njenne war nañoo wax kër maam isaa ñu xam ne problème bii am su dee kër Cheikh Ibra war wax ak kër maam Cheikh Ibra ñu xam ne problème bii am su dee ndaam war nañoo wax ak ndaam ñu xam ne problème bii am ay nit a ko fi am te nit ñi ko fi am ñi ngi fii ci karte bi même bu ñu waxul seeni tur su ko defee famille yi ci boppam sëriñ si ci boppam danañ mata danañ mën a mete quarantaine famille yooyu nga xam ne ñoo ci bokk su ko defee kenn ku ci nekk di moytu waaye nag boo gisee coow li bari boo gisee wax ji bari wax dëgg yàlla communication yi ci boppam yi nga xamante ne moom la ñuy def communication yi état bi def communication boobu moo baaxul ndax lu toll ni coronavirus ak niñ ko war a moytoo ak feebar bi ni mu bone ak jàngoro ji ni muy lawe jant bu demee ba am daarul manaan te que yilif daarul manaan yëgu ko ah chef de poste ba nga xamante ne moo yilif centre de santé ba nga xamante ne fa la ñuy dugal nit ñooñu ku yëgu ko ah, chef de quartier ba yilif quartier ba yëgu ko population bi nekk daarul manaan yëguñu ko wax dëgg yàlla benn murit du ko mën a gëm na benn murit du ko mën a gëm benn murid du ko mën a gëm bu boobaa it dañuy yaakaar ne sabotage yi fi am tàmbalee woon ko ci tubaab yi tàmbalee woon ko fa ci léegi sabotage yooyu rek fi am mais buñ communiqué woon ak nit ñi communiqué bu suus ci nit ñi xam ne lii mooy problème nii te lii lañ war a moytu kenn ku ci nekk dana ko moytu kenn ku ci nekk dana ko daw kenn ku ci nekk dana ki li ñuy euh, xëy tamit euh, xëy dal ci problème mu màggal yi bi feebar bi amee rek maanaam nit ñëpp dañoo daal di jóg tàmbali màggali màggali màggali magali moy li gëna tout Sénégal moy li gën tout Sénégal bokk yi état su ko defee loloy tax communication bob muy defit ba tay nit ñi di gëna ragal dir ji duñ ko wolu parce que magali mo gëna tout Sénégal magali li ni bari bari mo gëna tout Sénégal tay marché yaa ngi fi marché yi barki dembu de ngeen ki koy wax marché poisson mu ñuy wax nga xamné Mauritanie guiné Gambie ñepp fay dajé ay jooni jooni nit fay dugg par jour dégg ko tuddu aw tay marché Sandaga marché Kerbel marché Ocass bu Touba marché Nangam boole kook boo demee biir Dakar discothèque yi baar yi restaurant yi béréb yi nit ñi dajaloo di lekk yooyu yépp déggoo ko ci wax dara nit ñi dañoo xëy xëy rek attaqué jàkka yi attaqué jumaa yi attaqué maagal yi xam nga communication boobu it ba tey nit ñi duñ leen mën a gëm parce que dañuy daal yaakaar ne ñoom seen diine rek la ñuy xeex moo tax ñuy xëy xëy rek daal ci seen kaw waaye buñ daloon ci kaw la nga xamante ne état moom moo ko yilif cent pour cent parce que marqué yi yi état bi moo ko yilif cent pour cent ah, ah, ah, ah nu mu tuddati baar yi restaurant yi nga xamante ne fi la nit ñuy dugg du ne hôtel yi dem bi ak dikk bi yooyu tey état moo ko yilif cent pour cent su fekkante ne dañuy njëkk a dal ci kaw yooyu régler ko ba pare problème du am mais tey boo demee Ndakaaru fi ñu toll nii Ndakaaru la yi njëkk a tàmbalee mais Dakar mi ngi mel ni dara xew fu ba léegi Dakar mi ngi mel ni dara xew fu ba léegi boo demee ci marché yi ni ñu doon càmbal càmbale noonu lañ koy def boo demee ci bire bi restaurant yi na nit ñi doon duggee ci restaurant yi di lekk ba léegi loolu faam boo demee ci ya ñuy dajaloo ba ci même nga état bi fi mu toll nii ni nga xamante ne noonu la ñuy suulee néew yi sax waxu ci te loolu kaala boo xamante ne tey fi mu toll état dafa waroon a taxaw fexe ba nit ñi nga xamante ne bu ñuy suul ab néew téeméeri nit wala ñaar téeméeri nit la koy topp nit ñi ñoo koy sangal seen bopp nit ñoko koy sang sam est-ce nit ñoo ñu koy sang am nañ lolu est-ce nit ki faatu xam nañ ne lolu ko faat yoy yep am na ci yu bare bare yo xamantene tay buñ ko attaquer won nekkul ka bu yomb bo xamantene buñ xëy xëy rek wax ne mouride yi nangam ak nangam wala wala wala wala ki nangam wala ki nangam te xam nga état am na ci yu bare yo xamantene daf ko wara respecter tay tey nañ communiquer ak ñun wax ñu deug wax ñu li xew su ko defé ñu mëna comprendre xamné li mo xew fièvre bi mo am mi ngi bërepp sàngam mi ngi béréb sàngam te feebar bi baaxul dafa gaaw su ko defee nun famille bi ñun ñëpp nun man koo moytu kenn ku ci nekk man koo daw ñu xam niñ koy dawee xam niñ koy moytoo Touba xam niñ koy moytoo jant buñ demee ba lu jar ñu ko Touba ñu ko ñëpp xam ne lii tax ñu di ko éliminer su ko defee kenn du ci am ay doute kenn du am lu muy jaaxle kenn du ci am nangam nangam mais nag wax dëgg yàlla bu fekkente ne dëgg rek la ñuy wax communication yi nga xamante ne dañ ko war a jot communication yi dafa manqué lool ndax lu toll centre de santé bu daaru ma naan suñ demee ba ne coronavirus am na fa isolé nañ fa ay nit nit ñu yóbbu nañ leen testé leen te ñu nekk ca hôpital ba mënuñu cee xam dara kon bu boobaa am nañ ay problème suñ demee ba quartier daaruma Manaan am na ku fa feebar te mënuñoo xam kër gu mu doon mënuñoo xam quartier bu mu doon mënuñoo xam nit ñi nañ doon jaxasoo ñu ngay continuer di ci jaxasoo di ñëw ci armeel yi di ñëw ci dëj yi di ñëw ci ngént yi di ñëw ci béréb yi kon bu boobaa dafay mel ni arrêté wuñ feebar bi te feebar bi dafay gën a yokk kon état li mu war a def nag bu mu bëgg lu neex kenn waaye na communiquer li am su ko defee bu boobaa bu jaree ñu ne nañ tere màggal sàngam ñu ne nañ ko tere bu jaree ñu ne nañ tere nangam ñu ne nañ ko tere bu jaree ñu ne nañ tere nangam nañ ko tere ñaareel ba ñett ba ñetteel ba ca desuñ mooy état war nañoo bàyyi ñi ñaaw njort parce que mësuñoo tere dara ci àdduna Touba ñàkk ko bañ a def mësuñoo tere dara loo xam ne Touba mënuñ ko ba ñàkk bañ a luñ mas di tere lu nekk rek Touba ngi sàmmonteeg moom lenn laa mas a xam ci luñ mas a tere loo xamante ne ba léegi sàmmonte wuñu moom te mooy liñ doon wax parité bi mooy góor ak jigéen tolloo te loolu li tax mënagul am Touba ba léegi amagul ñu am compétence bi xanaa nit ki doo ko joxul lu mu am am compétence nit ki doo ko joxul lu am am compétence Touba bu yàggul la nit ñi door a tàmbalee jàng dugg ci système francophone beeg yooyu nekk ci école yi mais ñu ci bari jànguñu woon ci école yi tey xanaa doo jël parité di ko jox ñoo xamante ne amuñu amuñu dayo bi amuñu xam-xam bi amuñu maqama pour mën a yor lool kon mu mel ni bokk yi seen jataay bii di Al Majlizou Zoura yu mel nii la bëgg a waxtaane ba nit ñi état bi su fekkente ne ñu ngi ñuy dégg nañ communiquer ak ñun communication bu leer nañ ñu xamal nañu daarul manaan ci boppam am na feebar bi quartier sàngam moo ko am nit ki bëgg dañ kumpa nag su demee dana gis ne quartier boobu kat tey lu bon bon tey police buñ xëyee danañ fa xëy nit ña fay dugg si ak di génn ñu di leen wax ne leen yamale leen dugg li même bu ñu waxul kër kim doon ñu xamal nit ñi ne leen ah, ruq sii kat diggante 100 mètres yi wala 20 mètres carré yi dañuy bañ ko fi dugg nangam ak nangam bu fi nit ñu dugg su ko defee ñu dëkk ak ñoom ñu metti leen à quarantaine ñu xam ne ñii ñoo dëkk ak nit ki feebarte bu boobaa lii dañ ko war a moytu wala dañ ko war a def nangam nangam su ko defee bu yooyu amul rek dafi nekk ak jaxasoo boo xamante ne kenn dutu ko mën a saafara mu mel ni ah, sëriñ Modou Mbay ah, xalaat bi rek lañ amoon tey bëggoon koo waxtaane su fekkente ne am na benn mbokk auditeur boo xamante ne eh, bëgg naa dugg te bëgg cee wax surtout ñu nekk ci bitim réew te bëgg xam li xew ci Sénégal bëgg xam li xew feneen bëgg cee joxe seen i kàddu wala ñu joxe ci seen participation su ko defee nga bàyyi leen ñu dugg ñu àndandoog ñoom waxtaan wi nga xamante ne moom lañ doon waxtaane tey waxtaan wi it mooy niñ ko waxtaane rek wax dëgg yàlla waxuñu ñun ne Touba amul waxuñu ne du fa am xëy na murid yi koy wax dañuy mer rek nañ ñuy communiquer ak ñoom moo tax ñuy mer waaye buñ communiqué ak ñoom communication bu leer boo xamante ne dañuy xam ne lii la parce que tey communication Sénégal ba léegi dara daf ci leeragul dara def ci leeragul ay a français bu jóge fee ab ab nangam ak nangam ab ab espagnol bu jóge fee ab nangam ak nangam te yow da ngay sol say dàll di dem ca quartier boo demee kenn du ci xam dara nit ku nekk daaru manaan ab muudu muudu bu nekk daaru manaan ñii ne kan ñii ne nangam ñii ne béy ñii ne bis sax nga dégg ñu ci wax ci dara te kenn mënu la cee wax dara dara dara dara dara lu leer loo xam même waa Touba te wu leen ci li ngeen di wax te waa Touba xanaa population bi nag wax dëgg yàlla population population bi du xalifa général de Mouride kenn moo moom dëkk ba moo yilif dëkk bi lu mu ne nañ ko fi def nañ ko fi def mais bu bu ñu waree informer peuple bi lañ war a lañ war a informer peuple quartier bi quartier biñ ne fa la njëkk a génne quartier daaru manaan la quartier daaru manaan tamit ñi ko yilif dañoo war a xam ñi ko yilif dañoo war a xam quartier daaru manaan ka ko yilif ma nga fa naagut taxut gumbawut luwut defut dara sëñ Mbàkke Daba Saara nga fa chef de village baa nga fa euh, ñoo yore de santé baa nga fa ñay ñay notable yi dëkk baa nga fa ña nga xamante ne ñoom ñoo jiite dëkk ba wax dëgg yàlla ñoo ñit état war naa mën a communiquer ak ñoom wax leen ni leen liee fi am benn ñu ne leen malade bi kat dëkkul daaru manaan waaye dañ ko fi indi ci hôpital bi fi ndax hôpital bi fi la defar te xanaa hôpital boo xamante ni nit a ko defaral boppam defar ko pour askan wi defar ko pour peuple bi yëpp bala nga koy aménager di ci dugal ay malade wala nga di ci def dara nangam da nga communiquer ak waa Touba da nga communiquer a ñi nga xamante ne ñoom ñoo woowoon seen i taalibe bi ne leen defaral leen ma centre de santé bi def ci seen alal def ci seen yëpp xanaa da nga ak ñoom. da nga ak ñoom tey feebar bu toll noonu tey feebar bu toll noonu tamit bu mel noonu tamit nga xam ne noonu lañ ko ragale ak ni mu dogo xanaa normalement bu amee war nañ koo mën a wutal ay béréb yu ñu dem bay xalaat naan a ilifor boo xamante ne ay nit a doon toog ay nit a fa doon def nangam ak nangam nga xalaat naan da fay dugal ay malade xanaa bala nga faa xalaati dugal ci malaat amul aération amul aspiration amul dara amul fu nit ki nooyee te feebar bi feebaru nooyi la feebaru nangam la mais xanaa loolu wa yàpp waa ko weesu mais waroon ngaa fexe tey nga xalaat ne ginnaaw Mahwa dong moo ko fi am hôpitalu Ndaamaatu moo ko fi am waroon nañoo xalaat yooyu léegi su ko defee malade yu yam yi nga xamante ne ñoo nekk théorie yooyu su ko defee ñooñu moom ñu dépassé leen ñu déplacé leen yóbbu leen Daaru Marnaan te hôpital yooyu am doolu ñu yóbbu fa nit ña mais ab tabax boo xamante ne dañ ko faa tabaxoon mu doon ab aéroport euh, président yi daal fa wàcc ab hélicoptère di fa wàcc ñu ñëw ci biir tuba nga xam ne saal yi ci boppam buñ ko tabaxee amul aération amul dara tabax bi méngoowul sax ak nit ko malade di fa dëkk nga demoon ba xalaat naan dañ ko dañ ko bëggoon a aménager pour di fa isoler maladies yooyu dem bay xalaat hôpitalu Daaru Manaan bi nga xam ne ay nit rek ko fa def yu bari ya ci a am amu yi dafay mel ni am na lu nekk ci suuf loo xamante ne moo jaaxal murid yi ba murid yi mën a guñoo gëm ne feebar bi am na mais murid yi moom gëm nañ ne feebar bi am na gëm nañ ko parce que ñoo koy dund ñoo koy dund Italie ñaata murid a nekk Italie yoo xamante ne ci ci loolu la ñuy dund ci feebar bi la ñuy dund ñaata nekk Amérique ñaata nekk Afrique du Sud ñaataa nekk Angleterre ñaataa nekk Amérique ñaataa nekk Danemark ñaataa nekk Suède ñaataa nekk nangam kon ñoom wérante wuñ ne feebar bi am xam nañ ne feebar bi am na xam nañ ne feebar bi am na xam nañ ne feebar bi am na waaye nag am googu mu am nag dafay def ne kon faaw rek nit ñi communiquer su ko defee ñu communiqué buñ communiqué rek jàmm na ñooy ay wax yi ñuy wax jub ay kastu rajo ba jub ay màggalu Daarul Muxti jub ay màggalu Tuubaa yooyu yépp amul importance parce que murid yi li ci seen xol yi mi ngi ci seen xol yi te du ci jóge mukk murid yi li ci seen xol yi mi ngi ci seen xol yi te du ci jóge mukk sëñ tubaa nekk ci seen xol yi te sëñ moomu nekk ci seen xol yi du ci jóge mukk sëñ moomu ñu màggal si poroxaan ñu màggal si kasu rajo ñu màggal si nangam du tax mukk sëñ tubaa moomu jóge nekk ci seen xol yi jóge mais nag état moo am waru garu wax lii dëgg moo am waru garu communiquer ak nit ñi moo am waru garu wax ne lii kat am nangam lii la amee nit ñi tek ci seeni bët su ko defee nit ñi man koo moytu ñu xam ne problème bi am problème bi am su ko defee ñu man koo saafara parce que tay état li tax mu war a communiquer communiquer bu baax a baax ñi ngi ñaan yàlla mu yokku mais feebar bi ba mu amee ba léegi suñu borom ñu ci sutural dégg guñ ci dégg guñ ci daanaka étranger yoo xamante ne yu yu ci yu ci yu ci am feebar yooyu feebar yu metti kon léegi loolu su ko defee su amee nag état kon dafa war a communiquer andi ay communication yu leer ñu xam ne lii mooy situation yi jamono yi ñu toog ci situation yi lay dund su ko defee kenn ku nekk man koo moytu dafa mel ni am na ku nekk bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi Mbacke mën a daam gay. waaw kay sëñ daam gay. Mbacke Mbacke Balla Mbacke. jàmm rek alhamdulilah jàmm rek alhamdulilah na bokki Sénégal yi. ñu ngi fi ñu ngi sant bu baax alhamdulilah. alhamdulilah ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax. yàlla na yàlla nangu siyaare te boole. alhamdulilah booba léegi ñu ngi teewal waxtaan wi. alhamdulilah. waaw di ñaanal Serigne sëriñ Serigne Mountakha ak sëñ Cheikh Jëmb ak kilifa diine yëpp ñu yàgg fi lool ci wér. alhamdulilah. waaw ak mbokki taalibe fa yéen di ñaan daan di ñoom ko ñu ko bëgg ci ñaan ko ak ñoom. alhamdulilah. alhamdulilah di rafet lu baax baax ka di waaye noonu nga ko waxee rek wax dëgg yàlla mbir mi daal wax dëgg yàlla maam maam dafa lëndam ci suñu bopp. waaw dafa lëndam ci sunu bopp mm-hmm. ci bëggoon nañ ci ak leeral. en tant que mm-hmm. sénégalais en tant que ku dëkk Touba. Mm-hmm. waaw ndaxte buñ waxee ne feebar bi ñëw maanaam jóge na Italie ñëw senegal mm-hmm. ñu wax ne ki ki ko fi jëlee Bergamo la jóge ñu wax ne Touba la dëkk ba joxe aw tour ak ay sant. Mm-hmm. ba wax carte bi mu dëkk ci daaru ci ci wax ne Daaru Marnaan la dëkk. Mm-hmm. Eh, wax ne yóbbu nañ ko mook soxnaam. léegi loolu àdduna bépp di ko wax léegi ñu dem ba mu yàgg ñu gis chef de village Daaru Marnaan. mu génn taxaw ca kooku mag la waxewul ba kanam li wax moom moom ñun lañ gën a gëm ci liñ dégg ci ci ci rajo yeeg télé yi. Mm-hmm. waa hôpitalu Daaru Marnaan seen bopp ñoom tam wax ne gisaguñ benn cas. Mm-hmm. ñu gisaat waa waa hôpitalu Matlaboul Fawzayni bi ñu waxoon ne foofu lañ koy yóbbu kooku it directeur bi def na ab vidéo boo xam ne mi ngi ci mi ngi ci mi ngi ci YouTube bi wax ne moom tam gisagu dara. Mm-hmm. wax deug yalla li ki dess moy maire Touba war nañu genn wala ni nga xamni ni jege nañ sëñ bi ñu wo ko ko mo préfet la ko ma préfet kooku mom mo génnoon wax carrément mom ne ne an na fi. ba ba ba hmm. doomi ba doomi mur mur bobu sax euh, euh, moo tax waa walay bakke na nga jang hmm ñu war nañ leen woo ñu wax lolu ñu lolu ñu wax ak ministère bi wax na an na Touba ñu wax information fuñ ko jëlé hmm en tant que ay ñom ay kilifa lañu waru ñoo am ma information yi leer lañu wara am ndax ñu dañoo wara tok euh chef du village Darou Manane bi euh super euh, wa hôpital lu Madou Fassane tok ñu wax waji fu mu dëkk ndax bu dëkkoon Touba Darou Manane ñepp xamanté hmm dañ ànd kan mom ñu wax mom def na mom def na vidéo wax na mom mi ngi fi Italie mom dañoo joxe trom ak santam. Mm-hmm. kon nak lolu jarna wa Touba andi ci ak leral ba àddina bépp xamné mbir bi am mbir am na lu ci nekk. Mhm. lu ci nekk lu ci nekk nag moom lañ bëgg a xam ndax ñun bu ñu sañoon moom du du dugg Sénégal bay dem fenn. Mhm. ndaxte bu fekkee ne dañoo bëgg ndaje yi buñ ne bu kenn am te nit ñi di dajaloo ci car rapide ak njaganjaay yi. ko ko loolu man rawati loolu moo rawati màggal yi. Mhm. loolu moo rawati màggal te loolu dégguñu fuñ ko ayee car rapide yi daw Dakar te nit ñi di Touba dem Dakar ak ñëw ak dem Casamance ak ñëw raw ak Hmm. léegi wax dëgg yàlla waa Touba moom wax nañ ci andi ak leeral daal ci ñu sos ci maire bi génn wax lu leer hmm. wax lu leer loo xam ne nit ñi seen bopp dana ci mën a ubbi ko daal hmm. waaw loolu daal lañ ci amoon lu ñuy wax ca xam ne daal mbir mi daal jaxasoo na ndax kàddu ñu dégg ci seen village daal ñun ak ak ak ak waa hôpital Daaru Marnaan boobu ak madame Sosé loolu moom ñun doy nañu ndax yaakaar nañ ne seen bakkan waaw sëñ Mut Jóob sëñ Mut Jóob la sëñ Mut Jóob moom sëñ Mut Jóob moo jiite chef du village bu Darou Manane. waaw moom moom wax dëgg yàlla da caa da cee defuk matit nag ndax dafa jëlal moom yónniwut sax ndaw. waaw dafa jëlal tànkam boppam wër. waaw wër ca quartier Darou Manane bi yëpp bi nga xamante ne moom mooy chef du village. waaw la waxit dafa leer nee na ba léegi weddiwuma ko. waaye ba hmm. fi mu toll moom dama koo gisagul. dama gisagu damaa dama bëgguñu wax ma fu mu doon ndax gisagu ma fenn fu am ci daaru manaan loolu la wax lu leer te moom mooy chef du village ba nga xam ne ku fa am kër rek moom moom aw turam am turam yaakaar naa dana nekk ab listam hmm. nga ma ko waaw bëgg nañ ci ak leeral daal waaw moom kay moom moom la ñëpp soxla woo ndax ni ma ko waxee rek mooy feebar bi moom kenn weddiwul ne am na kenn weddiwu ko balaa la bu yàlla wàcce boo xamante ne ah. ni mu mën a amee ni mu am ni mu mën a amee ni mu mën a amee Italie noonu la mën a amee Touba la mën a amee Ndakaaru noonu la mën a amee fépp ndax balaa fu ne la ko yàlla di wàcce ndax balaa fu ne la ko yàlla di wàcce te Touba gee ba léegi am na ci ñoo xam ne nekkuñu ci li neex sëñ Touba nekkuñu ci li neex yàlla te ña nga fa te bis boo la doon wàcce balaa ci seen kaw mën na koo wàcce mm. wala ci ñeneen waaye li am solo mooy mm. état ci bopp état ci boppam ay màggal yi ay màggal yi màggal yi deuxième màggal yi deuxième kii la sëñ dàmb màggal yi ay deuxième màggal yi deuxième la yoo xamante ne yu ñuy def la muy aaday murid yi di ko def di ko màggal suñu sëriñ di ci ñaan di ci jàngi kaamil di ñaan réew mi nekk ci jàmm màggal yi du daal màggal yi ku neex sëriñ bu mu neexoon sax mën ngaa téléphoné ne ren màggaluñ dañuy bàyyi ba déwén ah, tela màggal yi te la màggal yi amul problème lii problème bi mooy nañ ñu wax li nekk ci biir dëkk bi dund ci biir dëkk ba di fa yóbbu ay rob di dem ca armel ya di fa yóbbu di fa dem di tuddi ay doom di fa def nangam mm-hmm. nangam nañ lu wax li am ndax nu man koo moytu loolu rek lañ wax loolu rek lañ bëgg loolu lañ bëgg ci lo jox information boo xam ni lo ndax en tant que président bu dee bay wax ak ministère de santé li muy wax war na koo leer lo xam ne ni moom ñëpp dañ ñëpp dañ ciy teg seen bët mm-hmm. Mm-hmm. waaw kooku na lo nañu wax fu lo am ci Touba ki ñu waxoon ne lo kooku joxe ne moom nee na mi ngi fii lo joxe woon nañ turam ak santam weddi na ko muy sëñ am di kan léegi lu leer rek lañ bëgg. alhamdulilah. Ah jërëjëf ñu ngi lay siyaare baax ñu bàyyi yéen mbokki taalibe yi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi sëñ ñu ngi siyaare baax. waaw kon suñu baax. ndongo li mbay gay mbay. ah sëñ mbay na kay tey. sant baax Mbacke Balla. rek rek da ngeen def ak yi ñu ngi sant bu baax a baax alhamdulilah ñu ngi leen siyaare bu baax. si si weeru rajab bi. yàlla ya, ya, ya, kan nah, na ko yàlla nangu te boole na ko ñun ñëpp. di siyaare mbokki taalibe yëpp. alhamdulilah ñu ngi siyaare sunu mbokk yooyu di ay italien. te bokk ak ñoom ak naqar ñoom itam di leen ñaanal suñ tuwaa mi muccal ay njabootam yàlla na leen muccal ñoom itam te muccal ñi ci des ñëpp te muccal seen mbokk yëpp. allahumma amin allahumma amin si barke Salaam allahumma amin waaw moom de woy woy woyofagum na ndax xam naa benn cas rek lañ si déggagum si ñoom koo xam ne ndeysaan yaay waajuram bu jigéen si la faatu. Mm-hmm. ba bëkki démb sax lañ ko doon denc waaye moom it dañ koo quarantaine ba mënut a mujjul mën a dem sa sa sa sa rob ba. Mm-hmm. xam naa ñu ñaanal ko rek sama borom woyofal ko moom it ba nga xam ne dana mujj sa jàngoro ja ndax moo mbokk moo frère yëpp dañ leen a mujj quarantaine nga xam ne bañ kenn fekkewu si bi ñuy denc seen yaay sax. incha um mm-hmm. incha allah. ñaanal leen rek ba sama ginnaaw jullit la moom ñu ñaanal ko sama borom dëgëral gën a dëgëral pas-pasam te gën ko musal rek si barke Daaru Salaam. Mm-hmm. amiin amiin amiin. waaye di sant bu baax nag di xam naa sax taxul ñu teewlu thème bi. dama mm-hmm. dugg nii rek fekk benn euh, li ma si jot a si mbokk taale boobu doon wax si maanaam ni mbir mi demee wax ji ni mu demee noonu Touba. xam mm-hmm. naa ñu am yéene rek xalaat bu gàtt buñ si am rek di xalaatu ku doye di euh, mooy rek man daal li may gën a soññ sama bopp laa koy tàmbalee ak ñun ñi nga xam ay taalibe lañ mm-hmm. euh, nit daal man li may wax toujours rek nit daal du fonk kilifaam ba noppi di ma fonk di loo sama kilifa mm-hmm. ah. ndax maanaam bu ñu xoolee maanaam structure yi ni muy demee maanaam état ni tey bu fii si Italie ñu nekk nii tey Eh, ñun ñëpp ñu bokk xamandoo ko day maanaam keroog bi premier ministre bi génnee joxe jox leen ndigal lim leen jox. Mm-hmm. tey mën ngaa yor sa tànk maanaam dox dox mètre yi bare bari doo doo dajeeg nit doo dajeeg oto. Mm-hmm. Mm-hmm. man nag li ma mënta mooy nit ki maanaam fexe ba mbiram mu nos ko ba. mu digal nit ñu def ko ba noppi maanaam man fi nga xam ne moom fa la sama sama yaakaari àddina a àllaaxira nekk maanaam nga bëgg ma koo sàggan nga bëgg a tax ma sàggane ko daal man loolu laa mënta xam. te ni ma koy faral internet gii nañ ko moytu. Mm-hmm. yoon wi kenn ku ne am nga kilifa. Mm-hmm. buñ fàttali ko si man Seex Abdoulaye Laxat jamono mm-hmm. yëpp nga xamee ne coowal rajo amoon na. keneen ba mu naan bu fekk ne lii ñu def bàyyiwuñ ko eh, eh, giñ naa si yàlla dootuñu dégg sama kàddu si rajo bi. ba muy jox ndigal sëñ Abdou sëñ Abdou Xaadir la mu ko wax mooy sëñ Abdou. nañ dellu sa la la suñu bàyyi doon def. dara xewatee nañu ko yëgal nañ bind ay bataaxel kenn ku ne am nga kilifa gu la fi nekkal ginnaaw am nga kilifa. Mm-hmm. man de dama xalaatoon ne yenn yi xewatee. balaa ñuy mm-hmm. sukkandiku si média bi sëriñ bi daa war a def li wala sëriñ bi daa war a xool wala di xalaatal sëñ bi. kenn ku ne mm-hmm. wax dëgg yàlla fa nga am kilifa nga delluwaat sofa. ba xam lu la si ba xam sa li ngay wax moom ñemee na ko wax. sëñ lay wax sa kilifa lay wax. donc loolu daal mooy li nga xam ne moom laay li si des nag nga xam ne moom eh, eh, sëñ Moussa Ka na ko daan waxee. naa feex yaa ngi di daw am ngir jamono suñu demee Touba niroog waa Touba sa bu ñu dellusee si mbal ni kooba Mm-hmm. Mm-hmm. ñun ñun bu yaakaaree ne tey état moo ñuy waxal lu ñuy jariñ mbaamu du ñu mm-hmm. defal lu ñuy taaral dañuy nax suñu bopp. yoon yi ba ko borom sampee ba suñu jonni tey ji mosu see am. murid yi nag ñoo war a gën a takk la kilifa gi ñu yàlla jox te ñeeñu ñee ñu ko. te loolu donc dégg naa sëñ Bassum sëñ Abdou Khoudoss mu di ko wax démb sa ndajem démb ma. li ko am benn lenn rek ngeen dese yéen. muy kilif baat kilifteef bi leen tënk bu ngeen bu su ngeen sàgganee ba ñàkk ko yem ak ñëpp dëgg la seen pexe yépp nag lu lenn lu dul rek maanaam lu xañ na mënu mënuñoo jóg attaqué système mu murit bi dëgg euh, maanaam tuddug ak seen làmmiñ waaye li nga xam ne moom lañ def mooy fexe ba la sa mata naw ñu fexe ba nit ñi sàggane ko mm-hmm. mi ngi mi ngi maanaam bari na lool fi mu ne nii ngay dégg loo xam ne kenn mosu taalibe mosu wax xam nga sëñ sëñ Baye li nga wax dafa am solo li tax moom solo xam nga. Mm-hmm. te war koo bàyyi xel mooy. Mm-hmm. xam nga fi mu toll nii tey euh, feebar bi ñi ngi wax ne dafa am Touba. waaw. mais communiqué wuñ ak nit ñi communication bu wér bu ba peuple Touba xam ne am na Touba. Mm-hmm. kilifa diine yi ko war xamit manam amuñu ci lu wër ci ne mbir mi amna mhm. ndax tay magalu kasu rajo mo jub waaw waron nañu wax lu wër ci ba wa kër sëñ fallu xamne ne bi mom amna te diw ak diw ñee ko yor mhm. xam nga ñu buñ xamé loolu ñu ne leen dañuy bayyi kasu rajo problème do am deug la mais buñ bëggee populu touba ak wa touba dem yam ci sëñ muntaxaa rek ne ko bi dafa am am na ñu ko am daaru ma naan am na ñu ko am gede te ñu dem saytul seen bopp bañ gis ne feebar bi amut bu boobaay dañuy bëgg a jaxase murid yi parce que dañ naan kompolo la ngir ñu terelee. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la euh, sëñ bi xam nga damay wax toujours ne sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa yàlla nañu yàlla gën a suturaal si moom. wàlle war na ñoo mën a def communication ci ne ma nga béréb sàngam nit xam ne ma nga béréb. xam nga sëñ Mouhamadane xam nga loolu li tax ma jàpp ne. yi nga xamante ma li tax man ma japp na ñoom buñ ko def moy ki bëggutu ki nga xamne mom da fay potoxlu bëggut lu leer man kay dama japp na ñun mouride ñoo wara gëna organiser wat gëna organiser wat suñu dëkk ndax it mbolo mi maté nako xel yaangi fi te nit ñi mhm. nangul nañ sëñ tuba jox nañ ko seen bop mhm. kon dama japp ne manam li am njàngat la ci nu ñu war a gën a ndax ay ya yor ñoom Mhm. donte ñun yoonu mu jógul ngir concurrence ak état waaye nag ginnaaw Touba si ay këyit dafa moom bopp moom boppam ba président sañu faa dem dafa dogal lenn lu dul si ndigalal kilifa ki ki ki ka yilif Touba noonu tey Touba maanaam amee liberté si ay këyit noonu lañ war a mën a fexe ba yu bari ñu am si suñu liberté ba dootuñu si nekk ay dépendance loolu nag mbooloo mu ko defee ngi fi muy tey lu mel nii tey bu fekkoon ne tey jii tey ay commission amoon na yoo xam ne tey ñooy coordonné tey chef de village yi. ñu mën di dajé né ah calendrier bi kër le chef du village di def manam wër wu nekk danañ dajé wala ñaari wër nek chef du village danañ dajé su ko defee compte rendu yoy ñi def tay dana tax ba lu mel nii bu amé tay chef du village yépp mëna dajé nga xamné chef du village daaru mëna rek du moy tok mom donc sax di def mais yeneen chef du village yépp dañu ñëw mëna def constat bi xamné li lii ñu xamné ñet manam maanaam doon de fukki chef du village ñoo téw ñu xamné ñom ñoo defandoo union de ñi nga mo xam union la mo xam commission la ñu ko mëna a tudde rek ñu né ñom ñoo gënë communiquer bi li ñu wax kat ci barab sangam nee nañu loolu amul soo si loolee document boobu dem. dem ah, ah. ba man jaar ba yegg si ba yegg si xalifa général murid li si des nag muy hmm. sëñ Amdi Kan moom maa ngi koy ñaanal yàlla sama borom si barke maam Seex Anta mi ñu bokk. yàlla suñu borom suut may may ko fanu gudd lool si barke Daaru Salaam ndax moom si ñi sañ si ñi sos fédération maam Seex Anta Mbàkke bi si daa si Italie si la bokk. Hmm. xam naa ko bu baax a baax. man bi ma déggee hmm. wax ji day soo tey bi ma ko déggee daf maa jaaxal. ma dégg kàddoom muy moom laa woo si jëwriñ yi nga xam ne mën naa leen jot laaj jëf ñu ne ma effectivement moom la te ki doon sos sos yi dafa li ñuy wax am noonu bu lay sosal maanaam bu la xam baaxul ndax ki doon sos sos yi dafa wax ne am di ba muy jógee amoon na feebar bi muy ñëw dañ ko ne woon bul dem ndax am nga feebar bi ba ñam bàyyi dañoo téléphone te yaayam bu yàggul lañ ko doon saraxal effectivement am di kan yaayam yaayam bi mu ngi fi Italie ñëwul sax moom si ñëwul sax si si si yaayam jooju gaañoo Mhm. xoolal loolu donc kon yépp nag bu fekkee ne am na tam te murid yi wax dëgg yàlla sëñ Tuubaa rek lañ bëgg sëñ sëñ dan murid yi sëñ Tuubaa rek lañ bëgg ndax fii nii murid murid ak wallaahi te seen murid wér am nga loola na xarifan yi mhm. dëgg la dëgg la diñ la gis nga ma dama wax ne ñun ñii dama koy léegi laa koy wax ñi ma nekk may leen amul suñu ni kenn ku bëgg tey jii sa bàyyi ñu koy jël lob décision si loo xamante bi ne njuum te dasay nekk bu ëllëgee mhm. dëgg la dëgg la ñu ngi jéggu moom daal xam naa ne nañu ñaan nañ bokk ñaan rek te yéen it li ngeen ñu si gën a mën a dimbalee yéen i seen kàddu mën a joti fu suñ kàddu jotiwut maanaam mën a waxtu si suñ mën a maanaam kilifa mooy kilifa ak yoon wi mm-hmm. waaye nag eh, lii defar dëgg dëgg moom njaboot gi si la mën a bàyyi ko mm-hmm. Mm-hmm. njaboot gi ñoo mën a organiser wu ñoo mën a nosu maanaam bari ndax fi seen i tànk joti kilifa gi tànkam tànkam demu fa te diggam ak yàlla doy na ko sëkk sëkk sëkk sëkk yitte adina mhm. lum ci si xamutoon sa ba muy doon sa mom señ Muntaxa lu mu xamutoon si àddina ba ba ba tok lu jitu mi tok ci jalub señ tuwa bi manam mhm. tànk ak doxub tànk do do do tax mu xam ko mhm. ñi doori tankam doori beutam doori loxam ñooñu nak ñoo amu sas hmm maa ma jéggul nak bu baax a baax a baax deug la dëgg la macha allah sha allah sëñ Mbay macha allah macha allah yal na yàlla yalla na yàlla barkeel yi rafet na lool wax dëgg yalla yalla Euh, yàlla barkeel te yokkute mbokk yooyu nga xamante ne euh, ñoo nekk Italie te nga te nga nekk ci seen kanam muy tu te nekk ci yoon wi di yoonu lislaam nekk ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ñoom itam yal na leen yàlla sàmm euh, soxna soosu nga xamante ne moom itam moom la ci waajuram faatu moom itam yal na ko yàlla sàmm ba génne ko ca loola moom soxna si mooy soxna si dugg ci lislaam moom soxna si moom na ko yàlla génne ca loola te xam ne am nattu rek la nattu moom noonu rek la mën a demee waaye li ci am solo mbokk yëpp wax ko Eh, loolu rek mooy mooy am importance bi ñun jant buñ ni may wax rek jant buñ communication communiqué communiqué bu leer rek problème du am waaye eh, maa ngi maa ngi wax ne murid yi nañ ci moytu bu baax a baax nañ ci moytu buñ leen jaxasee mukk ak seen kilifa yi parce que état moom toujours mi ngi dugg ci biir Touba ci luy jaxase kilifa yi toujours mi ngi ciy dugg toujours mi ciy dugg ndax fi mu toll jii jant buñ fexee ba benn kilifa communiqué ci rek buñ fexee ba benn kilifa communiqué ci rek dana doon ay réero yoo xam ne réero yi su ko defee bu boobaa lañ bëggoon ñoom am nañ ko ñi ngi ñaan kilifa yépp bu benn kilifa communiqué nañ ne patt toog diglu te gëstu lii ba mu leer gëstoo ba mu leer nag lépp loo xamante ne luñ ciy teg la ay luwaala la yuñ ciy teg te yoon nangu ko teñ mën a wax nit ñi ñu moytu ko nañ wax nit ñi ñu moytu ko ndax feebar moom kenn ku nekk danga nga koy moytu ndax li ñu wax naan fogoru moo gën faju waaye nag nañ gëstul seen bopp tey Abdoulahat Ka ñoom ñoom ñi nekk ci commune bi ñoom ñi nekk ci nangam nañ fexe ba chef de village yi nekk Touba tey léegi daje chef de village bu nekk ñu xam feebar bi nekk sa quartier fan la nekk ak ban béréb la nekk. su ko defee ñoom bu boobaa nag ñoom ñooñu buñ dajee ba toog waxtaan ba noppi ñu daje ca mairie ba nañ ñu communiquer Abdoulahat Ka ñoom nañ ñu communiquer communiquer ñi nañu dëgg dëgg kat neexut ba neexut mënuñoo wax ay tur mënuñoo wax ay nangam mais feebar bi am na Touba su ko defee ñun waa Touba yépp ñu moytu ko te ñoom ñu def ko dem ci kilifa yëpp su ko defee bu ñu demee ci kilifa yëpp rek yaakaar na dana am loo xamante ne dana mën a saafaraw te bu booba coow yi dana wàññeeku dana def nangam nangam waaye kenn ku ci nekk di communiquer kenn ku ci nekk di wax neex di jël ay turi nit di leen accuser ndax am di kan boobu ñu doon accuser am di kan moomu ñun ñu nekkoon Italie yëpp xam nañ ko ñu bari it xam nañ ko. am di kan moom ma nga moo ne sax baru ci waxoon ne moom moo am feebar bi moo ko fi indi te xamoon na bi ko fi ñëw moo ko wàllu doom jom ñaari at moo ko wàllu doom ñaar te loola dara amu ci ndax am di kan moomu ba léegi fi ñu toll nii mën nañ leen a jox ay numéro téléphone wala ñu wax leen ay nit yoo xam ne su ngeen téléphoné Italie ko jot kon dafa mel ni bokk yi am na ci loo xamante ne ni ma koy waxee mooy communication yi daal leerul xamuñu nag état ñun luñ ci jublu xamuñu ko xamuñu ko waaye war naa nekk lu leer loo xamante ne kenn ku ci nekk da nga xam foo ci dugg ak foo ci moytu su ko defee ñun ñëpp lu mën a bokk moytu ko li ñuy ñaan jullit ñëpp li ñuy ñaan murit yëpp nañ dal man loolu lay ñaan murit yëpp même taalibe yi nekk ci internet bi nit ñiy wax ñii coow nañ dal nañ dal parce que feebar moom munta nekk Touba umpuñu munta nekk tubaa umpuñu su ci amee rek des na ci xam lu leer loo xamante ne te bis buñ ci amee lu leer sëñ Muntaxa moom xam nañ ko bu baax a baax sëñ Muntaxa taxaa ay waxam du génn ci sero du génn ci sero mukk lu génn rek lu ko jar a génn la ndax moo fi nekk sëñ Touba te la maam Cerno ku fi nekkal sëñ rek yàlla rus la mom yalla rus nako ndax man gëm na sax ne ba fiñ tollu fi may wax ak yeen ni dama gëm ne feebar bi du lor ben taalibe seigne touba man loolu la gëm man feebar bi nu nek ni du lor ben taalibe seigne touba man loolu dama ko sama gëm-gëm bop la kenn ku nek am nga sañ-sañ li ci sa bop nga wax ko gëm na ne du fi lor ben taalibe seigne touba te dan te dana dem te dana wu te dana dem ci jamm waye nak ngir population bi mën nek ci jamm ngir ñu mën def naan kon ñi ngi interpeller gouvernement bi nañ ñu wax lu leer nañ communiquer ak ñun wax Touba amna ay chef de quartier Touba amna maire Touba amna ay sëriñ kilifa diine yu mom quartier Touba nañ dajé ñom ñu wax ñu lu leer fièvre bi amna fi ñan ñoko am duñ buñ wax turi ndax turi kenn du ko wax kenn du communiquer nan diw def fièvre diw def fièvre niñ juumee ba def ko ci am dikan mom ak togn la te dara amu ci ko soxlo wuñ ay tur waaye nañ ñu soxlaal ñu ne ah quartier bi kat fièvre ba ngi fi ma nga ca béréb sàngam même buñ ñu waxut kër gi ñun danañ moytu quartier ba parce que quartier ba man suba te suba suba suba suba taalibeb sëñ na faa nekk boo xamante ne nit mën na faa faatuñu woo ma fa su ne feebar bi am na fi dama naan leen feebar bi am na fi nañ dem denc ko rek te ñu bàyyi te dem damay dem ca faatu damay dem jullee ji damay dem taxaw ko te bërki démb rek ci mujj maa ngi daaru ma naan taalibeb sëñ Bass bu newoon a daara ji di murtum keroog man mi man maa ko taxaw maa ko doon jullee ci biir jàkka jumaay daaru jàkka daaru euh, kon kon yu mel noonu suñu suñuy rakk fa nekk daaru manaan googu fa nekk a fa nekk suñ mbàkke daba saar suñ mag la mooy mooy xalifa ba moo fa nekk ak suñuy rakk ñoom ñëpp ñoo fa nekk tey suñu fa nekk muy famille maam Thierno Birahim kon bu fekkante ne feebar bi dem na ba na ñoo wax lu leer kilifa xam ne feebar bi ak ko defee ñoom itam ñu mën ndax ñoom bis bu set ñu ngi seen kër taalibe seen taalibe la ñoo leen di tuddali doom ñoo leen di demali ngént ñoo leen di demal nangam léegi suñu leen waxut feebar bi te xamuñu fan la feebar bi nekk nu ñu mën a fajo kon da ci am lo xamantene ne bokk yi ñu ngi koy ñaan état bi yépp mu dimbale ñu ngir yàlla euh, indil ñu ay communication yu leer ñu xamne mbir mi amna, na su ko defee ñu man ko moytu suñu mun taxaay jël ay matuwaayam yi mu jël yépp ndax bis buñ ko ko waxé rek lépp leer ñu xamne mbir mi dafa am suñu mun taxaa mën jël ay matuwaay suñu mun taxaa bu ne won ak murid yi dem leen tok seen kër sax mouride yi benn murid du génn ci kër mais nak ku jité ay millions nit ba lañu ko waxloo danañ ko lo ci leer motax suñu ko wax lo suñu xam na wax dana wax ci lu leer du wax ci ay ay ay ay nangam ak nangam rek parce que loolu ci kon nag muy loo xamante ne seen jotaay bii di seen Almajlisu Zuura ngeen ànd ko seen mbokkum taalibe Mahmoudan Mbacke moom sëñ Basiru Anta Ñaŋ loolu del soon taalibe yi nañ yokkaat suñ pas-pas ci sëñ Tuuba nañ yokkaat suñ ngëm ci sëñ Tuuba nañ yàq nañ yokkaat suñu doylu ak sëñ Tuuba waaye nañ yokkaat it suñ doole te xam ne noonu sëñ Tuuba yi ñu ngi fi ba léegi waxuñu nag ci ne ñun ñun dee wax yaakaar ne ay daanu déedéet du waxuñu lool de man li ma waxoon ci tàmbali ba rek gëm naa ne feebar bi mën naa am fu ne ci loolu moom gëm naa ko gëm naa ne feebar bi mën naa am ci àdduna ndax lu yàlla di wàcce la mën na koo def fu ne waaye nag nan gëm sëñ tubaa mi te doyloo ko te xam ne amul kenn koo xamante ne suñ digganteeg sëñ tubaa suñ digganteeg tubaa mën nga koo yàq amut ndax nun murid yi xëy na bañ bañ sonal réew mi bañ indi ay jàngoro ba lor ci ay jàmbur waaye nun ñun bu ñuy dem tubaa ñun bu ñu xëyee di dem tubaa képp danoo pare pour dee parce que danoo yaakaar ne dem gi ñuy dem tubaa jihaad la ñun te murid yëpp foofu lañ nekk murid yi ñoom amuñu problème boobu amuñu problème mu dem Touba faatu amuñu problème nangam buñ ne woon choléra baa nga fa euh, coronavirus baa nga fa Ebola baa nga fa ku dem Touba da faatu mu wóor nañu ko dem te faatu te sëñ Muntaxa ne na ngeen ñëw màggal si ñoom dañuy dem màggal yi day boonu dem faatu parce que ñun loolu lañ gëm lu ñu ci fekk nag baax na mais loolu lañ gëm te loolu kenn mënu ko dindi ci ñun kon nag ñu ngi ñëpp di gërëm ñëpp Euh, seen jotaay bi di almajlisu suura fii lay tàggu yéen xam naa ba dimanche bii di ñëw di wax ne ñi ngi ñaan bu baax a baax suñ mbokk yi nekk ci àll bi te feebar bi sonal leen leen yal na leen seen yal na leen yàlla yëkkati yal na leen yàlla yëkkati yal na yàlla ubbi seen i bopp yal na yàlla saafaral seen i jàngoro yal na yàlla dalal seenum xel yal na yàlla delloo si seen économie delloo si seen lépp bañ jël si waat ci jàmm te adduna bépp ne ko sëñ Tuubaa waxe woon irham jami alwara ya haadiya ndadaa kon loolu yàlla na dal ci kaw mbindeef yépp mu nekk loo xamante ne am nattu la bu tege woon ci jaam ñi rek suñu borom yàlla na ko saafara jaam ñépp génn ci ci jàmm Sénégal gii ñuy wax it am na fi yàlla na ko suñu borom dàq tem bañati fee am tem bañati am ci mëneen réew sax mu bañati am fenn jaam ñi dund ci dundu ci dund ci dund ci jàmm mën a del si ci jàmm ci yépp xanaa di naqarlu rek nag di naqarlu rek nag wax dëgg yàlla euh, médiatiser bi ñu ko médiatiser ba tax béréb jaamu yàlla yépp ñu bëgg koo tëj loolu moom luñ naqari la ndax fi mu toll feebar bi nun jullit ñi dañoo gëm ne même buñ ko dee daw même buñ ko dee moytu même buñ ko dee faj dañoo gëm ne ñaan ci la bokk bokk yi ñaan ci la bokk kon état yi buñ jaxasee dëkk yi buñ jaxase réew yi nañ bàyyi dëkk yi nga xamante ne amaguñ fa nañ bàyyi nit ñi dem ca jàkka ya ndax ñu mën a ñaan yàlla ndax yàlla wàcce ko ndax jàkka ya alquran yañ fay jàng salaatu ala nabi yañ fay def xasiida yañ fay def ñaan gañ fay ñaan suñu borom toroxlu ga saraxlu ga mën naa wàcce lu baree bari bu ñu ko médiatiser benn médiatiser bi ba mu ëpp ba tax kenn ku nekk toog sa kër nañ bàyyi dëkk yi ko amul ñu mën a dem julli ci àjjuma mën a dem ca jumaa ya mën a ñaan suñu borom ndax suñu borom wara a woyofal jàngoro jooju di sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuh